vendredi ma benn jour yi ba ñu amoo ko ma tegale ko vendredi. maa ngi yëpp daf ko yëpp maa ngi ci moom maa ngi ko récupéré yëpp ma def ko ci benn kele indil la ko mën na ko am. classe gàtt gàtt mën na benn deux heures de incha allah. Thank you.

Go left. Yes. Bugün bugün. Niang entraîneur Sonacos de Diourbel donc maa ngi nuyu waa Sonacos yëpp commencer samay nuyoo ci président Sonacos mu jël samay nuyoo teg ko ci loxo DG Sonacos ak membre yi liggéey Sonacos yëpp di nuyu aussi jël samay nuyoo di ko teg aussi mu nuyul ma waa staff bi yëpp euh, ñi nga xam ne c'est les administratifs les accompagnateurs de l'équipe ak supporters yi. Eh, loolu aussi aussi jël sama nuyoo man en tant que di nuyu tous les membres de staff ak ñi nga xam ne ñooy liggéey boobu liggéey di nuyu nag waa Njaareem yëpp nii ñëpp ñi nga xam ne ay supporters lañ ci ginnaaw équipe bi la nekk boobu la ñu jàppale. boo seetee liggéey bi commencé nañ ko depuis daaw yàlla def na aussi bi ñu commencé championnat bi daaw euh, ñu ngi ko terminé quatrième place mais jafe-jafe yi ñu amoon mooy boo setloo ci terrain bi doon dem entraîné boole ci amuñu woon terrain bi ñu recevoir a Diourbel yàlla dimbale ñu cette année si ñu reconduire ñu ñëwaat liggéey ak bi li fi ne woon daaw ñu renforcer ko bi ñu ko renforcer démarrer championnat bi yàlla dimbali ñu bi ñuy démarrer ñu nekkoon ci kanam ñu dem ba ci biir équipe bi rës yàlla dimbale waat ñu ñëwaat ba ci kanam ñu ñëwaat tey nekkaat ci kanam nekk premier tey ci championnat bi mais li ko waral aussi mooy wax dëgg yàlla derrière am na un accompagnement très sérieux bi nga xam ne mi ngi am ci équipe bi beneen mooy au niveau du staff vraiment liggéey bi tubaab fakàlla macha allah euh, am na xale yu fi nekk yi nga xam ne vraiment yàlla may leen xarañte ak cawat nga xam naa wax ne ñun nga xam ne ñooy seen ay chef di leen jëlee sax parfois liggéey bi ñu ki def dara parce que ñuy def lépp boo gisee conditions ñu liggéeyee parfois aussi dafa xaw a métti di ko métti mooy eh, équipe bi parfois am na nga xam ne am nga ko mooy équipe dana tam fa nga xam ne foo tollee dafa am ay infrastructure boppam moo tax tey boo seetloo xoolee fi ñuy entraîné tey jii parce que ma terrain bi dafa am làmb moo tax mu ñu fa entraîné donc progrès aussi damay wax ne bu amee aussi c'est grâce aux footballeurs parce que ñoom aussi ñoom accepté nañ projet bi nga xam ne teg nañ ko teg nañ ko fi ñu ne voilà bii de coach mun nañ leen cee dimbale ànd ak yéen et boobu ba aussi macha allah wax dëgg yàlla si le plan comportement y a rien à dire c'est des gosses qui se comporte vraiment convenablement lépp lu ñu soxla ñoom ñu ngi koy def. beneen bi aussi lépp li nga xam ne war na ci liggéey bi aussi ñu ngi ko ciy def vraiment aussi ñoom aussi bu équipe bi yegsee fii lañ leen ci remercier. bu baax a baax a baax mais di leen wax ne aussi jeexagul war nañoo gën a continuer parce que championnat bi des na ay journée koy cere daal amul leneen daal xam rek donc joueurs yi aussi dañuy ñëw lu ñu indal ku nekk li nga indaale aussi da nga koy bàyyi li mu mën yow aussi li nga am sa xam-xam ñu yokk la donc ci loolu la ñuy liggéey aussi di leen yokk ba ñu nga xam ne jëleen leen ci nawetaan yi wala jël leen ci mercato bi ku ci nekk aussi bi nga ñëwee ba léegi aussi sur le plan physique sur le plan technique sur le plan mental wala sur le plan physique vraiment dina am li nga xam ne ñu ngi koy def ci yow ba nga xam ne bu ëllëgee sa yoo duggee doo mën a décevoir moo tax chaque fois nga gis ne jour bu ñu jël rek bu ñu ko indee rek mais bu ñu tuddee bu ñëwee aussi day fay la day def la différence. loolu aussi lu ko waral aussi mooy la cohésion bi nga xam ne am na dans bi nga xam ne moo am ci liggéey bi. xam nga équipe ñoom aussi bi leen recruté leen recruté comme seen ay morom te def aussi équipe boo ko recruté boo ci nekkee di ci liggéey da ngay gi en ce moment da ngay nekk ci benn dynamique. donc dynamique boobu ngay nekk aussi boo ci nekkee da nga ciy continuer di ci liggéey donc doo mën a tëb donc il faut que li lay pousser ngay changer parfois mooy que dem ba certain moment ne que tel jour wala tel poste jour bi am na baisse de forme wala tel jour wala jour bi dafa am blessure nga mun ko indi remplacer mais c'est des joueurs xam ne sur qui compte parce que am na ñi xam ne mën na leen ay Pape Sall mi ngi fi ay Ahmed Dia ngi fi ay Malo fi ay Abiba fi Ibou Faye qui est en train de faire très bonne chose ay Ata mi ngi fi ñoom ñëpp ku ci ne aussi Abdou ñi ci dugagul daal mooy ñett ñoo ci dugagul boobu ba léegi Habib amadu Niang aussi moo duggagul ak Youssou Diagne ñu duggul ci équipe bi mais le reste ku ci nekk ñoom ñëpp dugg nga ci match yi football nga dugal nga xam nga li yëf yi ni mu demee moo tax ñu aussi vraiment dañ leen aussi wax rek nanu muñ kon na liggéey xam ne aussi seen tour dina ñëw seen tour bu ñu rek à fois chaque fois rek ñu saisir ko. waaw ñu ngi ci vingt joué nañ ngi préparé la vingt deuxième journée bi nga xam ne moom la war a am ak ESO fii à Diourbel bu ñu joué vingt deuxième journée bi dinañ dese maintenant quatre journées championnat bi jeex. mais ci loolu aussi damay wax ne championnat bi jeex parce que fii la gën a métti fii la gën a métti lu tax mu gën a métti mooy tey équipe xam ne ñu ngi suñu ginnaaw ku ci ne bëgg ngaa ñi nga xam ne ñu ci xeex pour bañ a wàcc kon fi mu toll nii xeex bi day gën a métti loo tax moo tax championnat bi fi toll nii dafa xaw a métti dafa métti dafa métti match yi nga xam ne bu ci nekk da ngay jàpp ne final la et final aussi da koy gagné noonu lañ koy jàppee di ci avancer match par match pour que vraiment au finish à la vingt sixième journée en Ligue 2. donc gérer ko damay wax ne jafe na jafewul donc jour dinaam bi ak ñun aussi liggéey bi ñuy continuer di ko def suñ ci continuer ak accompagnement bi nga xam ne gis nañ ko temps yi ci équipe bi ak la forte mobilisation des supporters nga xam ne ñu ci ginnaaw équipe bi du ñu poussé ak les bonnes volontés nga xam ne ñu ngi ci biti ku ci ne léeg-léeg nga am sa jël sa téléphone léeg-léeg nga am say kàddu sànni ko pour ñu déglu pour équipe bi ci kanam je crois que bu nu mbooloo rek boole xol yi nekk benn xam ne tiré dans le même sens li ñuy soxal mooy équipe bi njaareem donc njaareem aussi ñun bu doxee ñun ñëpp la doxal doxalul maam Niang doxalul Omar Sam wala doxalul Pape Serigne Diène directeur technique kon boog ñun ñëpp tey aujourd'hui ñu ngi lancé un appel à tout un chacun fépp fu doomu njaareem nekk nga xam ne équipe tey jàppal na sa équipe la am nga ci kàddu am nga loo ci mën a wax loo ci mën a wax rek pour mu dem ci kanam rek en tout cas on est preneur donc tëjuñ suñuy bunt bunt dinañ déglu ñëpp parce que boo léegi aussi ñi ngi déglu nit ñi aussi yàlla ñuy suturaal affaire yaa ngi ñëw kon boog dañuy lancer un appel encore une fois une forte mobilisation autour de l' surtout sur les deux journées nga xam ne fi moom la recevoir à Diourbel. waaw ñun daal yi nga xam ne daal moom la ñuy ragal dëgg dëgg dëgg tey fi ñu toll nii mooy loolu aussi du dépendre ci ñun mooy ay cas de blessure mooy boo seetloo équipe bi presque boo seetloo am na ñu bëri ñu doon jeté ji boo seetloo génn ko waral mooy dañoo gaañu te loolu aussi mënul ñàkk ci compétition mais nag yàlla suturaal nañu. donc loolu daal laa xam ne daal mooy jafe-jafe xam ne tey jii mun nañoo gàllankoor bi nga xam ne mun na fex équipe bañ a dem donc mais aussi wax dëgg yàlla médicaux yi ak ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax à chaque fois su yàlla defee ñu am ku gaañu rek dinañ fexe tout pour na ñaari jours yu ñu fa ber fële dañoo gaañu woon ay titulaire loon woon ñu ngi leen di préparer waat pour fexe a terminer le championnat donc loolu daal en tout cas daal xam naa mooy gàllankoor bi beneen gàllankoor bi mun a am aussi mooy que ñu bawal bawal ñu dem ba ci biir ñu téye suñu bopp ne mbir mi mbiru Masamba la de du ma du ma Samba du ma Demba donc suñu mbir la ñëpp nañu ñëw daal en tout cas diisoo ko bokk ko xam ne yàlla am na lu ñu defal parce que ay atañu ni ñuy daw ci lii yàlla aussi bu la defalee mbir nga am fa xam ne yegsi nga fa tey ci da ngay saisir sa chance kon boog ñuy lancer un appel à tout un chacun fépp doomu njaareem ne képp nekk muy autorité politique autorité administrative ku mu mënta doon rek nga xam ne mën nga indi un appui au club te vraiment cet appui vraiment day nekk un appui nga xam ne dana mën a jëriñ équipe bi bu ñu ma dem ci kanam parce que fi ñu toll nii mooy li ñuy wax rek équipe bi fi ñu toll nii toll na soxla na ay moyens dëgg-dëgg équipe bi soxla na ay infrastructure mais li ci war li ci am solo rek mooy ñu ànd booloo defar xol yi ànd xeex ba yàlla may ñu yéeg ak yàmm di kees mel a waxtaanaat incha allah waaw chaque fois temps yi passé moom wax dëgg yàlla bu ñu buy taxee ñuy wax rek ñu ngi ñëw stade di ñu jàppale di taxaw suñu ginnaaw di ànd ak ñun ci match yi ba démb mbuur presque am nañu déplacé wu ànd ak ñun une forte délégation loolu aussi tamit damay wax ne toujours rek dafay yokk cawarte parce que aussi li nit buy liggéey ci dara laaj na léeg-léeg bu demee ba mu yàgg gis ci ginnaawam mun a man de am nañu ne sama ginnaaw parce que lépp lu may def naa xool ñi nga xam ne dañoo déplacé wu paas ñu bàyyi seen lépp kon boog aussi ñu ngi lancé un appel lancé un appel commencé ko ca kaw au directeur général de la Sonacos, lancer un appel au président de la Sonacos, à tous ceux qui sont autour du club, les administratifs, les techniciens, les supporters, ak les bonnes volontés képp nga xam ne tey jii rek wax dëgg yàlla yàlla mën yàlla am na lu mu la mënal nga mën ko indil équipe bi rek vraiment tu es la bienvenue ñu ñëw ñu ànd booloo boole xol yi defar ko pour suñu équipe dem sa kanam parce que ñun njaaram lañ am moo ñu soxal. Go, shoot! yàgg si kaw. baax na yàgg si kaw ak central euh, central de la sonakos aussi maa ngi fi depuis année passée pour un contrat de deux ans ok ren la war a jeexal aussi on pour la pour la Ligue 2 nekk ci yoonu monté incha allah. Oh, bon c' est une très belle équipe aussi bu am jaar-jaar aussi am na histoire c' est une très grande équipe bon depuis bi ñëwee ba léegi ñun aussi c' est objectif la ñuy dox. daaw aussi ñu ngi woon pour la montée mais yàlla dogalu ko ñu terminé à la quatrième place bon ren yàlla def na ñoo jiitoogum pour le moment di ñaan yàlla yàlla mottali yéene quoi incha allah. métti na nag yombul nga nekk ci kaw. bon gars yëpp place boobu la ñu bëgg mais bon ñu ngi koy gérer à notre manière bien vrai que métti na trop mais instant bi ak euh, sas bi ak motivation bi aussi bon mu ngi ci quoi ku nekk euh, ñaan nga yàlla sooy ñibbi aussi nga yóbbu trophée loolu ñëpp di ñaan aussi dëkk bi yëpp aussi population bi ñu ngi xaar pour ñu yégal équipe bi Ligue 1 te ñu ngi ci yoon bi ñu ñaan yàlla rek yàlla yombalul ñu ko incha allah. bon jafe-jafe mënul ñàkk mais quand même fait avec. d'autant plus que dirigeant yeeg président équipe bi ñu ngi def ay euh, ay moyens ñu ngi def ay moyens ñu ngi def ay effort bu rëy wax dëgg yàlla xam nga bon dëkk bi aussi ñu ngi ñuy jàppale di ñaan yàlla aussi ñoom ñu ñoo daw ci ginnaaw équipe bi topp ci ginnaaw équipe bi gën leen jàppale aussi parce que dëkk bi wax dëgg yàlla soxla nañ ko parce que depuis lors gars yi ñu ngi ciy daw te mu ngi bëgg a yàgg incha allah. douzième gaynde ah, ah. waaw di woo waa Diourbel yëpp rek ah di woo waa Diourbel yëpp parce que depuis mun naa wax ay 4 à 5 ans yoo xamante ni Sonacos mu ngi de te ñëpp xam nañ ne du place am vu historique équipe bi équipe bi nekk équipe bu mag la jël ay trophée bu nekk fii Sénégal donc ñu lancé appel rek ñoom ñëpp ñu ñëwaat euh, topp ci ginnaaw équipe bi dooleel ñu. pour ñu mën a yéeg Ligue 1 incha allah. Uh-huh. Mm-hmm. Uh, waaw bon loolu moom bon objectif déjà moom moo ñu fi tënk ah. bon objectif pour le moment c'est la montée donc euh, après bon luy ñëw rek euh, ñu ñu ñu xam ne bon loolu loolu la yàlla dogal mais bon gis nañu Sonacos moom équipe moom équipe bu mag la équipe bu neex a nekk la aussi dirigeants yi aussi ay ay nit yu baax lañ quoi population bi aussi on vit bien ici à Diourbel quand même. comme d'habitude ah comme au début du championnat dañ leen digoon ne que dinañ jéem a yégal équipe bi incha allah bon ñu ngi ci tànk yooyu noonu ñu ngi def lu ñu mën aussi parce que soo seetloo ñu ngi woon ci woon ay douzième place di xëcc équipe bi ba ci ba ci première points du premier instant bii nii bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen rawee donc deux points xam nga ñu ngi topp suñu ginnaaw ñoom bon ñu ñaan yàlla rek yàlla yombalal ñu lépp rek ba ñu mottali yéene incha allah.